wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin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 ci waxtaan wi ñu génn ñu ngi soobu woon ci xare Badar Badar xare bu yéeme la ndax yàlla def ci nattu jullit yi di xool seen pas fan la toll ndax yàlla soo ko gëmee rek mu nattu la ba tax na itam ci natt yooyu ci lay seggi su ko defee ci lay xame ay soppeem ci lay xame itam ay noonam mel ni gis bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu dee génn am njëkk moo ko taxoon a génn mu di alal ju nga xam ne daf ko doon nangu ji ci ay noonam ndeke yàlla dogal na ni dafa wara a xare ji te ba mu dee ba mu dee génn ñetti téeméeri soldaar la genne ak fukk ak ñett te itam ñi mu dajal wara a xeex ak ñoom àgg nañ ci junni wala bokk li leen dese ñu mat junni bariwul te itam dañu wax ne ñaaru mën kenn te ñett lu bare ñaaru mën kenn te ñett lu bëri feeñ na badar jullit ñi amul woon pas-pas ñoom ñëpp daneen yox yoxi wante dégg ngeen saxaabi bu mag boobu li mu wax di Miqdaad ibnu Amr li mu ne yonent bi wéyal ci lépp lu la yàlla digal ñun ñu ànd ak yow te duñ la wax mukk la banu Israil waxoon yonent yàlla Muusa ndax dañu ko waxoon ne ko demal yow doom nga ànd ak sa yàlla ngeen xeex suñu leen gañee ñu wàññeeku bu ngeen gañee ñu ànd ak yéen soog a dugg ci dëkk bi mun dañ lay wax ne demal ànd ak sa yàlla ñu topp ci seen gannaaw suñ ñu gañee baax na suñ ñu gañewul baax na ñun daal eh, dañ ñuy diri rek te ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong di jaar mel ni wax bu rëy la Miqdaad ibnu Amr wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan na ci ndax su àndeeg sax xarit wala bokk sax xarit àndeeg yow nga nekk ci fitna mu nangoo dund fitna ba ak yow sa xol dafay gën a sedd ci moom moo tax xolu yonent bi sedd lool ci Miqdaad ibn Amr yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ak jaaxle ci wàllam saar comme niñ ko waxee woon ndax lanu siñante woon moo di biir Madina tey nag li xew ci biti Madina la moo tax ci lisaanu xaalam Saad ibnu Muaaz mi nga xam ne moo doon sangu agus mi kilifa ci wàllam saar moo gëstu yonent bi ne ko wallahi laka annaka na ya rasulallah moo gëstu yonent bi ne ko yow soppe yàlla bi dafa mel ni danga am soxla ci ñun pour ñu jàppale la ci xare bi nga xam ne sumu nga ko yonent bi ne ko waaw waaw mu ne ko ñun gëm nañu la te dëggal nañu la te seede nanu ne li nga indi dëgg la ñoo wëllërante woon ak yow te duñu ko fecc mukk li ñu wëllërante woon ak yow nag moo di déggal la ak topp la kon wéyal ci li la yàlla déggal ñun kat dana nu ànd ak yow giñ nañu ne buur bi nga xam ne moo la yónni ci dëgg soo xuusoon géej gi itam danañ koo xuus ànd ak yow te kat duñu ay buqat duñu ay ragal fit ak njàmbaar arab yépp xame ñu dëggu lañu lu ñu war mukk duñu fecc wëllale kon nag maa ngi lay yëgal ne foog naa ne sa bët dana sedd ci ñun kon nag doxal ci barke yàlla yonent bi sallallahu kanam ga leer nañ ci wax boobu dëgg boobu nga xam ne am la kilifa ak aw suba bu wax di Saad ibn Muaaz yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ca kaw ne siiru wabshiru fa inna allaha qad waadani ixda taifatayn wallahi laka anni anduru ila masaric alqawm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne saxaaba yi dox leen te ngeen bég giñ naa ci yàlla ne yàlla digg na ma benn ci ñaari kuréel yi benn ma jot njëgg mi nangu alal ji ca nekk wala ma dajeeg armée bi ànd ak abu jahlin xarek ñoom wéli nag saf na suukar ndax alal la bee nag na kaani ndax ay soldaar yu armé leen war a dajeel benn nag muy njëgg mi wala soldaar si waaye daal yàlla dég dig na ma ixda taifatayn bu dig ñi continuer ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñu jege Badar foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa jaabale fasam daa di daw jiitu nit ñi tuuti dajeeg benn sëriñ benn mag waxtaan mag ma wax ko ne ko won ko ne ko daal soldaar si daal soriwuñ leen jóge nanu màkk te jege nanu barab bi wante yonent bi feeñuwu ko wanu ko ne ko moom mooy yonent bi dafa noppi rek jàpp njàmburam waa ji xamu ko wante nag ci biir waxtaan waa ji wax na ko ne ko soldaar si daal sori daanaka yegg si nanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wëlbatiku dellu ci saxaaba yi ba ñu wéyee tuuti daje dañoo ku ñuy wax basbasa ak adi ñooñu ñoo ko wax ne ko su fekkente ne day caravane bi àndoon ak Abu Sufyaan la ñooñu échappé nañu ndax jàll nañu dem nañu màkk ndax dañuy jaari tefes sang bi xam ne kon ah li fi des daal moo di xeex rek a fi des ndax njëgg mu rëcc na ci la yebal Ali ibnu Abi Talib ak Zubayr ak Saad ibnu Abi Waqaas ak Basbasa Basbasa ibnu Amr mu yebal leen pour nañu jéem a raju jéem a xam bokk dara ci mbiru yéeféer yooyu jóge Makka am nga espionnage dagan ci wàllu xare ndax alxar bu xudaa guerre stratégie la foofu yonent bi sallallahu alayhi yebal na ñett ñooñu nga tudd ne leen dem leen ci teen sàngam joxoñ leen benn teen ne leen su ngeen fa demee mën na am da ngeen xam dara ci xabaaru euh, dégg nga maam yéeféer yooyu jóge màgg bi ñu ñëwee fekk nañu ca teen ba rawaaya qurayshin fiha suqaauhum teneen fa ay gëléem yu nga xam ne waa quraysh ñoo leen yebaloon pour ñu root ca teen ba ndox mu ñu naan ndax tukki bi dafa sori diggante Makka ak Badar dafa sori diggante Medina ak Badar itam dafa sori foofu nag bi Seydina Ali ne tëll aksi ak ñaar ñi mu àndal ñooña daw nanu wante jàpp nañ ci ñaari gone biñ fa jàppee ñaari xale xale yooyu bi ñu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa fekk nañ ko muy julli ña daw nag ba demee ci yéeféer ya dañ leen wax na leen Eh, Muhammad de ak ay saxaabaam am na ñaar ñu ñu jàpp ci ñun diw ak diw loolu defoon nag métit lool ci yéeféer yi ndax ñoom daal dañu xeeb yonent bi lool sax lu leen def rek daf leen di metti lool ndax ñoom bu sañoon ñoo koy def waaye yonent bi du leen def dara foofu nag ci la yéefir yi nag mere mer mu tar ne daal nanu gaaw bopp daje jeeg Muhammad pour mën ko faagaagaal rey ko rey ñu mu àndal ñoom foogoon ne ni mbir mi dafay yomb lool ci ñoom wante ñaari xale yooyu nga xam ne jàpp nañu leen mi ñu leen indee saxaaba ya laaj nañu leen fekk na boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi julli ci waxtu woowu biñ leen laajee ne leen yéenay ñan ñu ne leen naxnu suqaau Quraysh ñun kat waa Quraysh ñoo ñu yónni woon pour ñu rootal leen ndox jullit ñi ne leen waxu leen dëgg da di fen daal di leen dóor dóor yu metti biñ leen dóoree ci la xale yi wax ne naxnu li abi Sufyaan wa naxnu fil ayr ñun kat Abu Sufyaan la ñu àndaloon ca njëgg ma la ñu bokk wante comme yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am lu ko yàlla di xamal lu nit ñi dul xam ba mu julee ba sëlmal geestu na wax ak xale yi wax itam saxaaba yi ne leen ñoom kat bi ngeen leen laajee ñu wax dëgg da leen dóor waaye bi ngeen leen dóoree nag dañoo fen wax boobu day wane ne kon la ñu njëkkoon a wax moo di dëgg ñoom armée bi la ñu àndal waaye ànduñu woon ak njëgg ba foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa ca tey ga mu laaj leen ne leen naka seen mbir ak naka mbiru waa Quraysh Abu Jahlin ak ñi mu àndal ñaari xale yooyu wax ko ne ko ñoom daal soriwuñ leen yegg si nañu daanaka ñoo ñu yónni woon wante bis bu nekk ñoom danañu rey fukki gëléem tey bu ëllëgee ñu rey juróom-ñeent ci xam-xam ci wàllu calcul ak ci wàllu ak ñaw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booleeg li ko yàlla defal xam na moom yonent bi ci rey googu ñuy rey fukki gëléem par wala juróom-ñeenti gëléem par mu nekk seen dund ci la xame ne kon mbooloo mi Abu leen àndal junni soldaar la wala juróom-ñeenti téeméeri soldaar mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi xam na loolu bu baax gannaaw ba mu ko xamee itam jàpp na njàmburam noppi ndax xam na ni itam dëgg yàlla ñi firi ñoo ëpp lim wante ku ànd ak yàlla itam kenn du la mënal dara ndax kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu maa sabirin moo tax bu ñu ñëwee ñoom jullit ba si Badar mu ngi wàcc ci barab bu nga xam ne suuf sa def di suufu beeñ jullit ñi amuñu ndox ñu ci bari commencé yoqat ndax coono bi bari na te itam ñu ci bari yàggaguñu ci lislaam seen pas-pas dëgëragul xëy na muhajirun yi nga xam ne ñoom sonaloon nañ leen màkk ñi gàddaay dem Éthiopie am nañ formation bu dëgër boo xam ne mbir mi daanaka diisul ci ñoom waaye nag ñi nga xam ne yàggaguñ ci lool xawoon na nañu daal di jàmbat coono bu metti ak ñàkk ndox ci waxtu woowule ak ndox bu metti bi nee foofu nag ci la leen yàlla roofee ak ngëmbentu ñoom ñëpp ñu commencé di nelaw nelaw yu xóot loolu itam sirru la bu yàlla def ndax nit bu sonnee su nelawee noppalu nelaw googu tax na seen coono lu ci bari wàññeeku na ci biir nelaw li ci biir nelaw yi ci la yàlla wàccee benn taw yàlla wàcce taw bi ñu naan ca ndox ma ba man di ñi tilimoon ñëpp sangu ca ña amee woon janaaba itam sangu ca ña bëggoon a jàpp itam jàppi ca suufu benn ci doon dox te moo di suuf su nooy si njëgër ba nekkatul gan muus bu leen di sonal léegi nag mu daldi neex lool ci dox foofu nag la jullit ñi amee chance sul jiitu gaañi nag badar yéeféer yi nag mbir mi metti ci ñoom ndax ni taw bi nekkee xéewal ci jullit ñi noonu la nekkee musiba ci yéeféer ya ndax dafa ngirool seen yoon ya te seen ndox yombul woon moo tax jullit ñi jiitu leen Badar moo tax moom la yàlla di wax ci alquran ne di wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa la jigoon ñaari kuréel yi ne ko wa is yacidukum allahu ixda taifatayn annaha lakum wa tawadduuna anna gayra dati shawkati takunu lakum wa yuridu allahu an yuxiqa alxaqa bi kalimatihi wa yaqtaca daabira alkafirin wa yaqtaca daabira alkafirin moo di ne yàlla na mën a fuddi ndigg yéeféer yi nga xamante ni weddi nanu ko na mën a itam yëkkati kàddu kàddoom gi yàlla itam mu ngi wax ci alquran ni nelaw gi leen róofu ak taw bi mu wàcc xéewal la bu bawoo ci moom mu wax ci alquran ni id yughashikumu nuaasa amanatan minhu wa yunadilu alaykum min alsamai maan li yutahirakum bihi wa yudhiba ankum rijza alcheytaani wa li yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al aqdaam aye boobu moo won jullit ñi ne yàlla ci boppam moom la soob moo wàcce taw bi mu di xéewal ci ñoom bante nag di musiba bu rëy ci yéeféer yi moo tax ñu ne bi nga xamante ni agsi nanu badar Euh, xubaab ibnu mundir saxaabi la woon bu rafet xalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ba ci benn barab mu ne nañu campé foofu dal waaye xubaab ibnu mundir daf ko laaj ne ko yow yonent la bi ndax fii nga wax pour ñu dal fi ndigal la bu jóge ci yàlla am huwa am huwa rëyu wal xarbu ko ndigal la bu jóge ci yàlla wala sa xalaat la wala stratégie de guerre la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne ko sama xalaatu bopp la mais wante du ndigal lu jóge ci yàlla mu ne ko yow yonent yàlla bi fii de du wàccuwaay mu ne am na benn teen boo xam ne xam naa ko fii ci badar ndox ma neex na te bari na te du jeex nanu dem tabax benn mbalk ci wetu teen bi luy ko ba mu fees ak ndox su ko defee teen yi fi nekk yépp ñu fatt leen ba bu yéeféer yi ñëwee duñu am ndox mu ñu naan ñàkk ndox ci xare defet bu rëy la ñu ko kon nag noonu dem occupé teen boobu su ko defee léegi saa suñu bëggee ndox rek ñu mën a tànk naan bu bëggee jàpp jàpp bu bëggee sangu sangu nga xam ne dañuy xeex di naan mu ne ko wante fii nag buñ fi nekkee ah foog naa ne yéefar yi mën na ñoo bu ñu njëkkee ca teen boobu du baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rafetlu xalaatam bi mu ko rafetloo nag loolu la alquran di junj ne wa shawirhum fi lamr yonent bi mosul nekk dictateur daan di soog ay saxaabaam moo tax sayidna ali karamallahu wajhahu daan wax ne al istishaara aynul hidaaya nee na jëmmi njub moo di diisoo nee na ku bëgg jub da ngay diisoo yàlla wax na ci alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndeel diisoog ñoom boo dee duggati ci mbir te du wax yu ci diisoog say saxaaba ndax am na ci ñu rafet xalaat loolu itam day wan rek ne bépp njiit boo xam ne bëgg ngaa jubal boo dul diisoo sa dara du jub ndax yonent bi moom la yàlla doon waxal wante nag daan diisoo te yàlla digal na ko ne ko del diisoo kon nit mënul am mët bu ëpp matuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy mët mët yëpp yàlla digaloon na ko pour muy diisoo moo tax wali xirsi almuslimina ala ala salaamati nabiyihim qaala saad bnu muaaz linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah ala nabni laka arichan takunu fii mu ne xër gu jullit ñi xër ci muccug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara bañ koo laal ak cofeel gu ñu am ci moom taxoon na sa saxaabi bu mag boobu ñuy wax Saad ibn Muaz wax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ala nabni laka arichan takunu fii mu ne ko xanaa yow soppe yàlla bi duñu la wutal benn xayma benn espèce su mbaar benn espèce su néeg boo xam ne ci ngay ndugg ndax yow bu ñu sañoon dara du la laal daal bu ñu sañoon ñun ñëpp mën nañoo dee waaye yow dundal ndax ci sa dund ci la diine di jëme kow ci la diine di dunde ci la kàddu yàlla gi di yëkkati ko kon nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi képp ku gëm yàlla daf la war a gënal sa bopp ndax saxaaba ya yonent bi sallallahu alayhi mas na ko wax euh, Seydina Omar ndax dafa wax ak Seydina Omar ne ko maa ak sa bopp ak sa wayjur ku la gënal mu ne ko gëm naa yàlla gëm naa la wante nag sama bopp moom ma la gënal samay wayjur moom ma la gënal yonent bi nag ne ko sa ngëm des wax dem ba jikki delluwaat ne ko man kat naa ba seet wante yaa ma gënal sama ñaari waajur yonent bi ne ko ah, ba léegi des na de Seydina Omar ba mu yàgg mu dellu si ne ko nag seet naa ba seet ndax nekkul ci moom rek du ko wax lu mu wax rek ci moom mu ko seet naa ba seet wante yaa ma sama ñaari waajur yaa ma gënal sama bopp o nar a deewee yàlla naa fa deewee man te nga dund yonent bi ne ko waaw yaa ngi soog gëm nag moo ngëm googu yonent bi junj foofu moo feeñoon ci saxaaba yi moo taxoon saxaabi bi di Saad bnu Muaz ne ko ala nabni laka arishan takunu fii gannaaw ba ñu tabaxee maanaam bañ ko defaralee espèce su néeg boobu nee nan Saad ibnu Muaz moo doon taxaw ca bunt ba yor ngànnaayam di ko garde yeneen bi sallallahu alayhi gannaaw bi ñu defaree arish boobu ba noppi moom dem na ci barab bi nga xamante ni fa ñuy xare ba fa demee itam am na lu mu def ndax dafa ñëw def miracle bu yéeme saxaaba yëpp di ko xool muy joxañ barab par barab naan jiw de fii koy rayee abu jëhlin fii leen koy rayee ñu tudd yéefér yi umayya fii leen koy rayee utba tubnu rabia fii la ñu koy rayee shayba fii la ñu koy rayee ku ci nekk rek ci yéeféru màkk yi tudd na ni barab sàngam ci ngay dee te nu mu ko waxee woon noonu la am yéeféer bu ne barab ba yonent bi joxoñoon ne fañ lay foofu lañ lay reyee fa leen la reye loolu ba tey rek yéeféer yaa ngay ñëw ndax seen yoon wa dafa diis ndax taw baa ko yàq te taw bi itam arrangé jullit ñi lool looloo tax itam jullit ñi daal di e, gaaw lool yegg si campé ba defaru waaw sakk teen yëpp dese benn teen bu nga xam ne ci la ñuy naan yonent bi itam joxoñ leen barab yi nga xamante ni ci la yéefar di daan yonent bi sallallahu alayhi taxaw na defar sàppe yi defar sàppe si ñu bënti leen defar leen defar bu rafet daal di delluwaat nag ca enricham boobu ñu ko defaral daal di dugg ca biir Seydina Aboubacrine topp ko wax ne ni nag mu ngi tombeek ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ñii ne fan ak juróom-ñett ci weeru koor ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa l'islam ba mu ko joxoon saxaabi bu ñuy wax Mus'ab ibn Umayr moom la joxoon joxoñ ko benn barab ne ko nag taxawal foofu mu dem taxaw fa yonent bi sallallahu taxaw na di xool sàppe si waxtu woowu wax nañ ne ni moo taxawee mu ngi taxaw jublu soowu won jant bi gannaaw loolu daf lay wan ne yonent bi sallallahu alayhi wa ku amoon stratégie de guerre la ndax jàkkaarloog jant bi jant bi daf lay gêner ndax waxtu woowu dafa nekkoon waxtu wi nga xam ne eh, ci jamonoy suba la ay waxtu midi une heure yooyu nga xamante ni waxtu suba boobu nga xamante ni ay dix heures onze heures nga xam ne jant bi daf leen di féete gannaaw te jant bi day tàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko waxe woon rek ku yàlla mayoon la ak ñëw ci wàllu xare wante itam daan na déglu saxaaba ya yonent bi sallallahu alayhi wa comme ni ñu ko waxee woon ci ni mu doon euh, defaree sàppe si ak itam jublu gi nga xamante ni jublu na ko sowu jant bi wan ko gannaaw wax ne ni moom yonent bi sallallahu alayhi mu ngi nekkee bil udwati chamiya yéeféer yi nekk bil udwati lyamaniya kon yonent bi moo won jant bi gannaaw ñi yéeféer yi dëgmal jant bi wante am na xew-xew bu am ci bi yonent bi di defar sàppe ndax bi muy ranger li nit ñi di defar sàppe di wane ni taxaw eh, ni soldaar yi war a taxawee am na benn saxaab yi bu ñuy wax sawaad sawaad bi yonent bi ñëwee ba ci moom di ko jubbanti dafa bàyyi ba sàppe si jub mu dëngal sàppe si xaw a avancé tuuti ci kanam yonent bi mu ngi yoroon espèce su bant doxala moom la bant fit bu mu yoroon wante amul woon ñaw ko amul dara bant bu yem la nii rek mu téye ko moom la doon defaree sapesi bant boobu nag la laal sawaat moomu ne ko yow sawaat istawi jubal ndax yaa tax raam bi dëng laal bi ko bant bi laal nag tax sawaat ne ko aw jaatani ya rasulallah mu ne ko gaañ nga ma yow yonent yàlla bi ndax jam nga ma sabant bi mu ne ko nag walladi baataka bil xaq maa ngi giñ ci bur bi nga xam ne moo la ni ci dëgg damay fayu gaañ bi nga xamante ni gaañ nga ma ko ab jullit la kat yonent bi laal ko bant mu ne day fayu yonent bi ne ko da ngay mu ne ko waaw mu ne ko fu ma la gaañ mu ne ko ci biir nga ma ko jam yonent bi sallallahu alayhi wa ak daw tooñ bañ koo jege ci benn wàll tax mu yëkkati mbubbam ma ba biiram bu tedd ba feeñ sawaat daa ñëw ba tolloog biir bi daa di koy fóon daal di akolaat yonent bi sallallahu alayhi wa bi tam daal di jaaxle ndax wax dëgg yàlla loolu saxaabi bi def jaaxal na ko ndax ni jullit ñi amee cofeel ci yonent bi mu ne ko gaañ la ma damay fayu yonent bi yëkkati mbubb mu foon ko akolaat ko yonent bi ne ko ma xamalaka ala ma sanaat ne ko yow sawat lii nga def lu la ci xiir mu ne ko xadara min amrillahi ma qad tara wa xashitu alqatla fa aradtu an akuna ahdi bika an an yamassaka jildi jildi jildak mu ko li xewkat yaa ci teg sa bët comme ni ma ci tege sama bët ndax déggu xonq moo jàkkaarloog ñun ma ragal nag xare bi dama cee ragal a te itam am naa cofeel ci yow bëgg naa la sopp naa la ma bëgg nag sama mujjug dund la may fàttaliku bu ma cay neex mooy sama der ak sa der laalante ma akolaat la souvenir boobu rek moo tax ma def lii ma def ak cofeel gu ma am ci yow wante du dara yonent bi daal di bég xam ne saxaaba yi yëpp ay soppe leen te itam bëgg nañ ko bëggeel gu ëpp bu ñu bëgg ñoom seen bopp ndax saxaabi bu ci nekk liiburoon nga pour bañ nekk jullit kon boo nekkee jullit itam liibur nga ci bañ sopp yonante waaye boo ko soppee itam loolu day wane rek ne ak jagle la bu leen yàlla defal ndax cofeel wàllu xol la ngëm wàllu xol kon ku yàlla defal defal na la cër bu rëy yonent bi sallallahu alayhi ci waxtu woowu ñu taxaw mu defar sàppe si ba saxaaba yëpp taxaw foofu la benn ngelaw upp ngelaw lu kenn ci saxaaba yi ku ko wax ne ko ne ko inni ara riixan qad haajat min a'la alwaadi mu mel ni dama dégg benn ngelaw seen naa ngelaw luy ñëw daal waaye ngelaw li daal ngelaw lu yéeme la dafa mel ni mu ngi jóge ca xur wële dama foog ne daal ngelaw la lu yàlla yabal pour ma jàppale la ci xare bi kon nag yéegal ci kaw yéegal ci xur wi balaa ngelaw lay agsi yonent bi ne ko déedéet ndax defar naa sàppe si ba noppi te itam samp naa sama dra ba noppi kon nag duma soppi taxawaay foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllalee loxoom boroomam daal di ñaan daal di ñaan fas yéene ci yàlla ne na ko yàlla jàppale moo tax bi mu ñaanee ba wàccee loxoom ci la benn ngelaw lu foor upp ñu toogaat tuuti beneen ngelaw lu foor bu gën a foor ba njëkkoonu upp uppaat ñu toogaat tuuti beneen ngelaw uppaat bu gën a foor ñaar yi uppoon ndeke ngelaw lu njëkk la jibril moo doon ñëw ànd ak malaaka yu bari pour jàppale si yonente bi sallallahu alayhi wa ci xare bi ngelawu ñaareel la ndeke mikail moo ñëw ànd ak malaaka yu bari ni kay moom itam ko yebal pour mu jàppale yonent bi sallallahu alayhi ci xare bi ni kay ngelawu ñetteel la ñetteel ba itam israfil la moom itam yàllaa ko pour mu ñëw jàppale si yonent bi sallallahu alayhi ci xare bi te kat gannaaw malaaka yooyu kenn ku ci nekk boot nga lu bari ci malaaka yoo xam ne sax bi ñu ñëwee ñoom jotuñoo xeex ñu ag nag ci ay junniy junniy malaaka loolu borom bi subhanahu wa taala moom la nettali ci suuratul lanfaal ci aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom ak juróom-ñaar ak téeméer ak ñaar fukk ak ñett waaw aaye téeméer ba ak ñaar fukk ak ñett ak aaye téeméer ba ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suuratul anfaal ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne malaaka yooyu bi ñu ñëwee bég na lool ndax malaaka yi dañu yor jëmmi nit te itam ña doon xare gis nañu malaaka ya waaye malaaka boo gis da koy gis ci melokaanu nit koo xamoon moo di jullit bu nga xam ne sa mbokk la ndeke malaaka yooyu fexe nañ ba jullit bu ci nekk ñoo jël sa melokaan su ko defee nga foog ne nita a nekk ci sa di xeex ndeke malaaka la moom la yàlla wax ci alquran ni id yuuxi rabbuka ila almalaikati anni maakum wante yonent bi sallallahu alayhi wa def na xutba bu rëy lu jiitu eh, xeex bi di am ndax dañu wax ne formé nee nañ taal jihaad moo gën gën a yomb formé soldat taal jihaad moo gën a yomb formé soldat ndax taal jihaad yomb na waaye fexe ba formé soldat bu nga xam ne du jalgati du ëppal la ko yàlla sant rek ca xeex ba lay def looloo jafe waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi na daa di sant yàlla tagg ko daa di wax jullit ñi ne leen maa ngi leen di ñaax ci li leen yàlla ñaax maa ngi leen di tere lépp loo xam ne yàlla tere na leen ko maa ngi leen di yëgal ne mbiru yàlla rëy na ba jéggi dayo yàlla di dafay digli dëgg te itam ku sopp dëgg la te itam dana faral di fay yiw ñooñ dëgg lu tax ndax daraja ju ñu am ci yàlla ak fonk gu leen yàlla fonk nee na itam nit ñi ñu ngi gënantee ñi gën a kawante ci dëgg yéen kat maa ngi leen di yëgal ne yéen a ànd ak yàlla te yàlla du fay kenn jëf lu dul ba jëf jooju danga nga jublu jëmmi yàlla rek kon xare bi bu njistal tax jàmbaar gi ngeen ciy wane bu njistal tax na yàlla rekk tax muñ nag koy séentoo ci jafe-jafe yi ak tartar yi wante nag ci jafe-jafe yi ak tartar yi ci la yàlla di wuññee njàqara ci la yàlla itam di musale nit ki ci njàqare ci ngeen di amee itam ak mucc ëllëg yowmal xiyaam ndax mbooloo mi bari na yéefir yi bari na seeni ngànnaay bari na na ngeen muñ yàlla boole na leen ak yonent bu nga xam ne mu ngi leen di digal di leen tere mu di man mii nekk ci seen biir nga la waaye na ngeen am kersa yàlla sëppu gis ci yéen lu jaaduwul kon defar leen seen comportement na mat leen seeni pas-pas na seen ngëm ci yàlla gën a dëgër ndax kat la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum merum yàlla kenn du ko yemaleeg merum mbindeef kon nag na ngeen góorgóorlu ba yàlla bañ leen a jéppi xool leen li leen yàlla diggal ci alquraanam ju tedd ji xool leen aayaam wéwér yi nga xamante ni moom la leen dëgërale di leen dëfale aayaam yooyu su ngeen ci jàppee da am ngërëmam da am itam doyam kon nag feeñal leen ci taxawaay bu tar bi taxawaay bu ñàng bi xare bu rëy bi feeñal leen ci ak njàmbaar bu nga xam ne dangeen ci mën a ame yërmande yàlla ak njëggalam yàlla kat dig na ma te lim ma dig dëgg la maa ngi leen di yëgal ne yàlla waxam dëgg la te mbugalam itam metti na te maa ngi leen di yëgal ni man ak yéen lu mu yàgg-yàgg rekk ci buur bu kawe ba la ñuy dellu ak lu àdduna neex neex ak lu àdduna naqari naqari ci yàlla rek lañuy ñuy dellu kon nag ngi sàkko yiru ci moom ngi sàkko ñoŋu ci moom ñu ngi sàkku itam ci moom mu aar ñu ñu ngi sàkku ndimbal ci moom wàkkirlu nañu ci moom bàyyee nañ ko suñuy mbir ndax ci moom rek lañuy ñuy mujj kon yal na ma yàlla jéggal yal na yàlla jéggal way gëm ñi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu di discours gu rëy lu jiitu xare bi di am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaanee ba noppi ci la nag yéeféer si yi di soog a agsi kon ñoom jiitoo nanu yéeféer yi ab diir ci Badar foofu nag wax nanu ne yéeféer bi njëkk a tëll njëkk a génn ci xare bi jóge Quraysh jóge Makka di waa mooy Zamaatu bnul Aswad moo njëkk génn ànd ak doomam bi mu ñëwee itam la mu doon njëkk a xool moo di eh, eh, fu ñu war a placé wu fu ñu war a campé fekk yonent bi jiitu na leen ca barab ba nga xam ne moo gënoon a placé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na wax ne allahumma innaka anzalta alayya alkitab wa amartani bil qitaal wa wa'adtani ihda taifatayn wa anta la tuxlifu almiyaad allahumma hadihi qurayshun قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك فنصرك الذي وعدتني اللهم أهلكهم الغداة yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow yàlla yow yàlla yaa wàccee téere bi ci man mu di alquran nga digal ma ma xeex yaa ma dig itam benn ci ñaari kuréel yi te kat yow doo fuuse rendez-vous yàlla waa makaan yi lam nee na yow yàlla yow yàlla yaa wàccee téere bi ci man mu di alquran nga digal ma ma xeex yaa ma dig itam benn ci ñaari kuréel yi te kat yow doo forcé rendez yàlla waa makaan nii ñëw nanu di tiitaru noonu la noonu sab yonent noonu sa diine fen loo sab yonent man nag maa ngi lay ñaan ndimbal la ma digoon te itam maa ngi lay ñaan tey jii seen jàmbaar yëpp alak leen loolu moo di ñaan gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom la ñaan ci barab bi ba tey rek jàmmarloo ba tey rek roofaloo amagul wante mbokk yi xam naa da ngeen ñu jéggal nag ndax wax dëgg yàlla waxtu wi ñu ñuy signaler ni jeex na